Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous fais du communiqué numéro 82 de ce vendredi 22 mai 2020 du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services, 14 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Cambérène 1, Derklé 1, Cité Bissap 1, Yoff 1, Guédiawaye 4, Almadies 1, Ngor Liberté Avenue Lamine Gueye 1, Kermassar 1 et Touba 1. 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 2900 cas ont été déclarés positifs, dont 1311 guéris, 33 décès et donc 1564 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à davantage respecter les mesures de prévention individuelle et collective.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 juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif juróom-ñett fukk ak ñett yi di ay cas contact fukk ak ñeent yi di ay cas communautaire benn ci Cambérène benn ci Derklé benn ci Cité Bissap benn ci Yoff ñeent ci géejuwaay benn ci Almadi benn ci Ngor benn ci Liberté benn ci avenue Lamine Gueye benn ci Kër Massar ak benn ci Touba juróom benn fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak benn cas ñu ngi ci suñu service su réanimation yi ñeneen ñi des ci hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal waññi na ñaari junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti kaa junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn malaat wër nañu ci fanweer ak ñetti nekk ci service su ñàkk ci seen bakken ngeen bal ma ak ñett ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam